salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi saxoo di seetaan seen émission wareef bi nga xam ni euh, bis bu nekk 11h lay am ba midi et demi waxoon leen ko démb wareef spécial lay doon ndax xam ngeen ni émission boobu Adja Digène Chimère moo ci koy seq ak El Hadj Ndiaye Lo Ndiaye actualité ñu indi li nga xam ni mooy li nga xam moo lëmb mi mu di drogue. waaye ba lu ñuy dugg ci waxtaan wi dañuy nuyu yéen mbokku téléspectateurs yi nekk ci gox yu façon koy ci àddina bi di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal tamit réew mi di nuyu ñi nga xam ni ñi nga tëdd ci hôpitaux yi di ñaan yàlla fëgg seen bopp ñu dellu seen njaboot yéen ñi nga xam ni da ngeen a nekk ci prison yi yàlla delloo leen aussi seen i njaboot te ngeen bañ a defit lu leen fay delloo yéen ñi génn bitim réew di daani doole yàlla ngeen dajeeg seen wërsëg mën a teel ñibbi si bokk ak seen njaboot di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yëpp waxoon nañu ko démb dontele da naan élégance ci jigéen nga koy commencé waaye Adja daf may bàyyi ma nuyu sunu mag El Hadj Ndiaye Lo Ndiaye di ko baalu àq ci koor gi nu génn di ñaan fanu gudd ak wér moom mi nga xam ni démb waroon na fi teew mais ci beneen liggéey la nekkoon moo tax mu tey ji mu ñëw jëmmal jataay bi indi ci xalaatam ku ci nekk xam na wàllu xam-xamam ci li nga xam ni mooy fait de société mooy lii xew ci jamono tey tànk boroom kër yi ak seeni njaboot ak li nga xam ni mooy dox ci diggante askan wi ak li nga xam ni mooy jafe-jafe yi nga xam ni mooy am ci réew mi El Hadj Ndiaye Lo Ndiaye maa ngi lay nuyu di am mbégte lool tey jii di togg yow ci plateau bi ginnaaw bi ñu jógee ci weeru koor jërëjëf Alaaji Abdoul euh, lay delloo njukkal bu baax di ñaan sama borom mi nu mayaat nu toog am na ñu woor te wariwuñu seeni kër am na ñu wari jóge seen kër dem bar sàq ba nu yóbbuwu leen ñi fi des baax bawu leen yërmaane sunu boroom la yal na nu yàgg toog te lu nu woor lépp yal na ko yàlla defal mu ay xéwal te yàlla jéggal na sunuy bàkkaar bu nu waree lawul yoon sax nañ ko jéggal Euh, di siyaare bu baax a baax a baax sama xarit di sama jigéen soxna diggéen su ma nekk ci États-Unis di siyaare waa États-Unis yëpp euh, bàyyi woon nañ ma xel waaye yàlla mooy dogal te it nag àddina tukkigul ku muñ am ci procès yi lu jot yomb pressé wu ma lenn maa ko ñaan mu ñu biseeg jàmm ban dellu fan nekkoon di gërëm it nag euh, tubaarkaal sama la xalifa seeral kullu murid sëriñ di Muxtaar Mbakke teg ci nag sëriñ Sidi Cheikh Abdou Lahad ndax démb barki démb noo woon ci bisub Cheikh Abdoulaye Mbacké bii ñëw la ñaar fukki fan ak ñett ci kori wi dañ doon def avant première ba ca kër Cheikh Abdoulaye ca Touba maag lay mbay Peex boobu liggéey la ñu nekkoon moo tax dikku moon waaye tubaar kàlla euh, dikku ma waaye daa mel ni euh, noo ngi toog ndax damay faral di wax ni démb daan nañu wax ni ñetti koy du ñu bokk mbalka ñaar du ñu bokk mbalka booba nag xëy na jikk yi ñoo wóortu woon waaye tey fukki ngi bokk mbalka di naan te ndox mi xaajul jikko ji la bu kenn wootee war naa man a teew ña fa toog koy teewal tubaarkalla yàlla na jitaay bi sax di ñaalit sama goro aji ndax sama goro la ndax sëriñam sama doom la maa magama daan ànd yàlla defal ko jàmm bu baax di siyaare nag it eh, borom kër gi ndax boobaak léegi tooguma fi mu yuusu di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko it nag at mu neex yal na ko yàlla dogal ak njabootam yëpp ak i waajuram ak ñi dañuy liggéey ci groupe Futurs Médias ñëpp di xale jigéen yëg góor ñëpp di leen ñaanal jàmm di siyaare ñëpp di la siyaare yet bu baax a baax ndax euh, damay faral di wax rek ni nan di yaatal ndax borom kër gi yaatal na wareef maa dégg na ko sanc ak aja euh, maanaam maa muy muy muy caat mhm. waaye lu woom sikki te lu sikki nag awu yoon te lu awu yoon lépp ñëpp xaj kon yàlla na nu yàlla defal jàmm te nu yàgg fee toog di gërëm nag laasana ñoom di ñaanal jàmm ñoom itam bu baax xale yi yaroo la ñoon noonu ñoo bokkoon liggéey ban dooree ba tey waaye kenn musu leen sikki jox na ñëpp cër suñ dee joxante cër rek lépp dina dox ñàkk joxante cër ñàkk a jox ni respect moo waral thème bii di jóg ndax doom bu amul respect ci waajuram waajur xamul ni am na doom lu waaye neex lëmbe te koy lëmbe nag bul xam fooy àtte ji moo waral ñuy wax yépp waaye ba jamono daan jamono bu ñu masaane cigarette bu ko jigéen déggee day daanu kiris ndax mu saxam lu mu bu ko borom kër déggee danañ tëju ñaan ci saa borom yàlla bu mu ko déggati léegi dafa mel ni làmbi doroga am ak mbappatum yàmbaa buñ ko dee tëgg nag mandee leen di siise waaye fu jaay libre <laughs> jërëjëf El Hadji loolu mu wax loolu mooy li nga xam ni mooy li am ci télévision Futurs Médias ci wàllu ànd bi ci wàllu complémentarité bi ci wàllu wuutante bi ci yenn place yi mm-hmm. léegi-léegi bu kenn manqué loolu moo lay won ni liggéey bi ñëpp ko bokk waaye ci kaw rek ci respect lañ koy teg ak ci li nga xam ne mooy ñi war a jiitu jiitu mm-hmm. waaw Adja ma bàyyi la nga nuyoo ñu dugg ci thème bi parce que thème d'actualité bi tey bii abordé nañu ko ak beaucoup de beaucoup de <laughs> la maa ngi leen di nuyu di la nuyu tonton Aziz maam Fama ni ma la nuyoo woon démb di la sargal di nuyu sama tonton ak sama papa moom sama papa sama goro la mm-hmm. euh, tonton Ndiaye Lo Ndiaye di sama xarit yi tamit maa ngi lay sargal di la nuyu di la baalu àq ci weeru koor wi nga xam ne moom la ñu génn Euh, di la ñaanal gudd fan ak wér gi yaram yàlla na la fi yàlla bàyyi ba ci kanam ak kanam ak kanam di nuyu télé mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoo sax foo faale télévision Futurs Médias taamu ko ci télé yi di ko seetaan waxtu wi saa jotee nee naa leen sama mag laa fi toogal Adja Dégène Chimère bu soobee yàlla ak lundi incha allah mu ñëwaat dooraat wareef nam ko daan defee ñu ngi koy bisu bu baax a baax a baax di ko nuyu di ko saagal di ko ñaan mu ñibbi si ak jàmm ak indi jàmm te fekk ci jàmm tonton Aziz ñu ngi woon démb ci femme et xam naa dañuy def rappel bu ndaw rek euh, wax ne drogue lañu doon waxtaanee drogue en général drogue yëpp muy drogue yi nga xam ne c'est des drogues licites di drogue yi nga xam ne c'est des drogues illicites yi nga xam ne état permettre na ko nit ñi utiliser ko ak yi ñu permettreul nit utiliser ko maanaam café bii ñuy utiliser cigarette geeg lépp drogue la pour rappeler drogue dure yi maanaam drogue dure bi ñuy wax cocaïne lii ñu naan yàmbaat yeneen yi ci topp mooy yi nga xam ne état permettre ko bañ fa jógee ñu wax ci femme et drogue ndax tey gis nañ ne jigéen ñi lañ ñu ne utiliser lu baree bari ci trafic drogue bi comme li ma wax démb c'est des proies faciles ñoom la ñuy utiliser pour transporter drogue bi léegi ñoom la ñuy utiliser partout dans les prisons yi nga xam ne ñu ngi à l'étranger suñu ay sœur ma rappelé ko ñu ngi fa drogue moo leen fa indi muy dëkk yu sori di Roumanie di Tunisie di di un peu partout le monde te drogue moo leen fa yóbbu te am na ci ñoo xam ne ba dem xamuñu sax li ñuy yóbbu lan la donc démb ci loolu lañ taxaw waxtaan waxtaan aussi si police bi waxtaan ci gendarmerie bi waxtaan ci douane bi ñooñu nga xam ne ñoo ŋànk sécurité réew mi delloo leen cër sargal leen wan leen ne euh, comme ni ñuy wax génn golo tonton Aziz xam naa dooma weddi kenn du ci njoowaanu te ñooñu ñooñu ñoo tax ñuy nelaw bu ñu tëddee di nelaw ñooñu ñooy jóg toog donc démb ci loolu lañ nekkoon pour rappel tey nag ma bàyyi la nga nga wax. ci fan lañ ba ñëw ndax dama ñàkk sama waajur démb. ci hmm. topp sama yaay gaañu. alaaji Cheikh Mbeng ñu wax alaaji Cheikh Tidiane moom suñ Babacar Si hmm. hmm. moom sama yaay ñoo bokk ndey ak bàyyi daanaka ndax moo ko yar ñu bokk genn geño hmm. moom dong laa dese woon moo nelaw tey jii lañ koy ñaanal nar moo na xëy si sax waaye euh, signature dafa foor ci contrat bu la dara jotul présenteel moo tax boroom kër gi weg la ñu lay dégg weg la mhm. ña nga bokkal jox la cër waaye kon du ma dikk ndax addina bépp nga fa mhm. te moom laa dese woon ci waajur maa ngi koy jaal nag xalifa mhm. di sëriñ Cheikh Tidiane Sy ndax alaaji Maali rek la gëm boo ko masaa wax mu jooy kiil la dëkk di ko jaale sëriñ Abdou Aziz El Amdo ak ñoom ñëpp sëñ Maodo ak sëñ Mbay si sama xarit mboolu waa kër alaaji Maali daan ko jaale waa kër sëriñ Touba yëpp ak jokkuli jëwriñ tante Aida ak ñoom ñëpp ak ànd nag góor a di leen ko jàll ndax moom képp laa dese woon ci waajur tey lañ koy ñaanal ca Pikine rue 10 Lambi Fodé di leen ko jàll yéen ñëpp it tawarkal la moom laa dese woon bu la masaa jàppal suñu Babacar si foo jaar jooy daa fekk woon lépp ndax téeméeri atam manqué na mook sama yaay tofala ñoon te sama yaay ci téeméeri la nelaw yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yu kaw ya maa ngi noonu allah suñu Babacar si jël jox ko teg ko ci loxo Alaaji Maali mu teg ci loxo Seydina Mohamed. Mhm. su ko defee defe naa ni du fanaan biti. biti yaa koy wax eh, El Hadj Ndiaye ngi noonu. Mhm. waaye yow ci loolu la yëngu rek ak loolu la dal dal ñeneen. Mhm. parce que nit dina àgg foo xam ne ci fa muy liggéeyee dañ ko fa jox cëru kilifa boo xam ni daf koy mate ci wàllu jikkoom. daf koy mate ci wàllu xam-xamam. mais daf koy mati aussi ci wàllu njabootam gu mu uuf te ñëpp ku ci nekk boo dawee jaaxle ñëw ci moom mu dalal sa xel ba boo mm. delloo gis ci moom lu tax nga gën ko naw mm-hmm. kon ñu ngi lay euh, jaalee sa nijaay jooju sunu nijaay jooju yàlla na ko yàlla xare àjjana la mu yaakaaroon ci tarixa Cheikh Ahmed Tidiane ba ànd ci ak sëñ Babacar Sy euh, fekke fii mag ñi nga xam ni ñoo fi mujj te yoroon tarixa bi mm-hmm. yàlla na ko yàlla faye loolu ndax xam naa ni euh, jàpp ci li sëñ aadi di wax Euh, tariixa cheikh bi boo ci jàppee ba wër doo gis ci sa bàmmeel lu lay tiital ak di la xiixaan yàlla bu mu gis loolu yàlla na tase ak yërmande yàlla El Hadj Ndiaye dafa am benn pàcc bu nga xam ni bu nu ko dee waxtaanee te nga fekk ko fekk ñu jox la ci benn wàll pour nga waxtaane ko ndax démb dañu jël li nga xam ni mooy drogue indi ñëw doole ci biir réew indi bëgg-bëggu jigéen ci ñàkk mën a am li mu soxla ba tax góor man ko cee dugal wala néew doole ci biir famille ba tax boroom kër ga di ko jaay jabaram yëg ko di ca ànd ak moom jë boroom kër ga ñu jàpp ko jabar ja continuer di ca jaay xale bu jigéen boo xam ni ñi tey tubaabay jóge ci àll ba ñëw takk ko du ñu xam garayam du ñu xam falayam te xëy na mu dawee bitim réew indaale alal di yëngu ci wàllu drogue te moom du ko xam mm-hmm. léeg-léegi it moom mu xam ko ñu koy tukkiloo mu koy yóbbu lu ñuy wax passeur di ko jox ay numéro téléphone mu ci mu ci ba ñu jàpp ko ci Adja wax na ko léegi ñi ngi ci prison yi nga xam ni ñi ngi ci dëkki tubaab yi indi jigéen joo xam ni day nekk jongama ci biir koñ am lu nekk ñu teg ko lu ne lu xew ñu tudde ko ko mu loo taabe xale yu jigéen yi ndaw ya ca koñ ba naan yaay may seen doom ak mhm. di leen ko jaayloo ba ñoom ñëpp ñu am indi woy laago yi nga xam ni ñiy jaay drogue dañuy jaar ci ñoom di ko écouler ba ñu koy jaay ay nit ak ñu nekk ci buntu kër yi di jaay taabal mhm. cagri di ko jaay di ko jaay ci suuf ba ajaa sax indi na ci benn baat grica boo nee grica ñu xam ne loolu ngay jënd loolu mooy li nga xam ci leen tënkoon démb te boo dee mag te nagu mag du yàq mbopp foog ñu déglu sa xalaat ci loolu bala ñuy indi tey ci jeunesse ak drogue El Hadj Ndiaye lu jaay waaw El Hadj maa ngi lay nuyu bu baax a baax nuyuwaat di euh, déwénati nag suñu président communicateur As Mansour Mbaye waaye ab euh, El Hadj Abdoul Aziz mhm. nit mu sa néew doole. ngor a toxu te dootu gaaw a ñibbisi bu ñu dëppul léeg-léeg mu dégg olof ni ku xamul foo jëm da ngay dëpp déedéet boo dëppee gëlëm ngay ànd ak ki xam fa mu jëm mu kondil la nga yegg ak jàmm ngoro a bëreetul waaye kenn du néew doole ku jox sa bopp yàlla yàlla wéttile te yàlla ku mu wéttile doo wéet dafa am yoo xam dafa am jikko yi lañu fóot yu baax ya remplacer ko ak bëgg te ñàkk gëm yàlla di dàq lu njul jot mukk bat ne di tukki ndax garab gooy bañ dee fekk la fa ba fa kilifa moo amatul bëreetul. Mhm. baa fa mu amit drogue amu fa. Mhm. waaye baatu kilifa léeg-léeg solal ko nit waaye bu doon mbubb set fu mu jaar gàkk bu demee ci mbooloo ñuy reetaan ko waaye munu koo sol ndax kilifa day yar boppam jëkk tegale bu dëngee la jiitu la waaye su jubee loo teg ci koom mu dem. Mhm. da xam sa njaboot ci la ñu ne bàyyi sa bopp ak yàlla léeg-léeg nga dem ci kër goo xam ne Abdou Aziz jàmm nga fa ak lislaam ak yar ak teggin te bu ñu añee dañ koo dëbëree dañoo bàyyi seen bopp ak yàlla te sutura gën lépp. waaye luy weeru lu ne ma nga ci lu dëgganul luy weeru lu ne ma nga ci ñàkk respect luy weeru lu ne dangay dàq te doo mën a jot luy weeru lu ne bi si nga ñëtu foo jaar ñu téye la kooku dootu sens dootu mérite doxaas xaas wanteer sa bopp la ak jaay sa bopp yaa ngi ci mbedd loolu waaye wax mu muñal yaa jàdd saw yoon te aw ñal lu wóoru jumulub dëkk foo jaar gëlëm am ngir la ñuy wax muy ak jub ak kilifa ak baatu jub ak personnalité ak jikko ju rafet la ñuy tagg nit soo wéetee gore soo wéeti li koo gore moo bëreetul jërëjëf El Hadj Ndiaye wax na ko yoon waa ngi noonu ñal waa ngi noonu boo jaaree ci yoon wi buñ la dabu see gis la boo dee jaar ci ñàll wi kenn du la la dabu see kenn du la gis am na ku nekk ci ligne bi Adja jëlal ki ci nekk ci ligne bi asalaamaaleykum bokk mi ñu ngi lay nuyu waaleykum salaam ñu ngi lay ziar di la dalal yàlla yàlla nangu ziar maa yaa ngi wootee fan Mboro laay wootee papa Abdou laa soxla woon. waaw papa Abdou maa ngi lay déglu. papa Abdou dégguma bu baax. waaw man la ma soppee bi ci Mboro maam man nga joxoon téléphone. dëgg la dëgg la dëgg la na def. maa ngi fi ñu yaar lu bëri sax. naka waa Mboro. waa Mboro ñu fi ñëw waa Mboro ñu fi di la bëggee lu bëri. jërëjëf ñu ngi lay déglu ci thème bi. di kontaan ci Wareef. jërëjëf. di ko rafetlu bu baax rek. sa numéro laa soxoon papa Abdou numéro. waaw mais bul coupé Lassane dina la ko jox léegi incha allah. waaw incha jërëjëf kon El Hadj loo euh, Adja El Hadj Ndiaye loo indi na. Mm-hmm. tënk na ko. ni ngor moo taxu. Mm-hmm. kër yi nga xam ni ngor a fa nekk néew doole duñ ko fa sentir ndax ku ci nekk sa ngor rek nga jàpp. moom ngay ànde te ku doylu kenn ëppalewu la. te nit ñaa ngi xëy diwuti seen i jabar ànd ak ñoom diwuti te defuñu lu ñaaw. te yàlla ngi leen di. bu dul rees. looti bëpp na ëpp na dëgg la kon euh, El Hadj Ndiaye Lo démb ñu doon waxtaan ma ñibbi démb gis ci benn journal maa ngi nuyu le commissaire Abdou Aziz bi nekk parcelle mhm. jàpp ñetti étudiante yu doon tox yàmba ak benn xale bu jigéen bu nekk lycée mhm. Adja mhm. ñi woon ci jigéen ak kii nga wax rek démb service de sécurité li ñu def. Mhm. tey ñu indi ci jeunesse parce que bu ñu waxee jeunesse du ñu bàyyi góor du bàyyi jigéen. ban jàngat nga ñuy wax bala may jox njaayloo mu indi ci li nga xam ne mooy yar bi nga xam ne moo war a nekk ci kër gi. ba xale yi war a mën a moytu yan yi. waa jeunesse mu nekk pàcc bu am solo ci lutte contre la drogue ndax tey bu ñuy wax drogue démb wax nañ jigéen ak drogue lu bees la xëy na ndax euh, euh, euh, côté genre boolewuñ ko woon ci lutte contre la drogue maanaam jigéen ñi fooguñu leen ci woon bu njëkk ba am na étude boo xamante ne nii def nañ ko ci étude bi mu ngi wax ne drogue bi ñi ko daan utiliser y a sept bi ñu xoolee y a sept ans ñi ko daan utiliser tranche d'âge bi ça entre vingt ans et vingt quatre ans tey jii tranche ñi gën a jeune di utiliser drogue treize ans lañ am donc ñu xam ne diggante sept ans yooyu jéego yu rëy def nañ ko ci utilisation drop hmm. donc gën na law gën na bëri ci suñu société euh, te dañu ne dis-moi quelle jeunesse tu as je te quelle nation tu auras maanaam wax ma ban jeunesse nga am ma wax la bu subaa ban nation ngay yore te nee nañ aussi la jeunesse am na penseur bu mag buy ne la jeunesse est la température du monde. Hmm. quand elle tremble de froid le reste du monde claque des doigts donc il faut s'occuper de la jeunesse mu nekk couche bu vulnérable moo tax nag te tamit nit ñi xam ne trafiquants yi ko narcotrafiquants yi nga xam ne les grands barons de la drogue dañu nekk ay manager maanaam dañu nekk nit ñu foor ci gérer ay nit ci ressources humaines di seet nag couche yi nga xam ne ñoo gën a vulnérable ñu jublu ci ñoom ngir mën a def seen liggéey donc loolu moo tax tey drogue bi am ampleur bu rëy rëy rëy ci société bi jeunes yi dugg ci bu baax a baax a baax a baax euh, euh, tonton Ndiaye la wax na ko sànq kilifa amatul ci kër yi ndax nee naa la démb tey yaaya nga États-Unis wala ma nga ca conteneur c'est très bien gis nga liggéey jigéen day liggéey góor day liggéey daan doole dafa xew waaye nag yar njaboot gi ci jaamu yàlla la bokk ndax nee nañ njaboot bu ëllëgee dañ lay laaj noo sàmmee woon donc jox leen bàyyi leen xel aussi ci la bokk te tonton la wax na ko sànq kilifa moo amatul ci kër yi ñu jël kooku di nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. Ah, asalaamaaleykum. ñu ngi lay ziar sëñ bi. soxna si maa leen ziar bu baax. ñu ngi lay ziar di la sant bu baax bi naka la. ñu ngi lay ziar ñu ngi lay nuyu. di nuyu sama ñaari nijaay yooyu toog. dëgg la ñu ngi lay fay bu baax. nga xam ne wax dëgg yàlla dama leen a bëgg. ndeysaan. ndax euh, wax dëgg yàlla dañoo civilisé. Mhm, mhm. te ab jullit dafay civilisé. dëgg la. maa ngi wuyoo ci turu Ousseynou Cissé. Mhm. Cissé maa ngi maa ngi wootee fii Mauritanie. dëgg la nuyu ñu waa Mauritanie yëpp maa ngi Kër Massar. di nuyu nag sama famille yëpp toute la famille Cissé. di rafetlu trop émission bi. jërëjëf jërëjëf loo xalaat ci thème bi muy drogue jeunesse ak drogue. dama nekk benn taalifkat bu ndaw rek. Mhm. boo xamante ni damay taalif fii nii ci rajo FM Nouadhibou. Mhm. Euh, bëggoon a wax tuuti ci drogue du ma taalif nag waaye damay tënk rek ñaari baat ci li nga xamante ni mooy wàllum drogue. dëgg la ñu ngi lay déglu. ndax bépp doomu aadama boo xamante ni yaakaar naa tu de toutes les facultés mhm. yaakaar naa lu jëm ci wàllum lu lay taqaleeg sa sago. war nga koo mën a daw que que ça soit ngay chrétien ndax loolu dafa lay empêcher ngir nga mën a dugg ci àdduna mhm. ndax bépp doomu aadama boo xamante ni mu ngi jëfandikoo li nga xamante ni mooy drogue mhm. saa yu ko jëfandikoo tàggali koo ak sagoom mhm. te doxalee na doxaleen boo xamante ne nii la mu jëfandikoo bu génnee ci moom mu rus dëgg la kon nag yaakaar naa war nañoo mën a moytu euh, li nga xamante ne nii mooy drogue maa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di nuyu sama tata Degen ma nekk États-Unis di yàlla mu dégg ak jàmm. amiin amiin amiin Ndiaye loo Ndiaye namm ñu ngi lay nuyu di nuyu waa yëpp di leen ziar. voilà di jaajëfal tonton dëgg yàlla wax Mauritanie ñëpp ngi si di déggee. jërëjëf di nuyu toute la famille Cissé. jërëjëf euh, defe naa ni Aida indi nga loolu mais El Hadj Ndiaye xale yi ma wax léegi ñu jàpp leen waaye tux mi ci biir kër yi mhm. wuy jur nekk ci di gis mbedd mi am lu muy def ci xale bi nga xam ni mu muy génn dem ci mbedd mi di fa dajeeg ñoo xam ni am nañu yeneen yéene ci ñoom lu dul yéene bu baax tux mi cigarette wax nga ko démb bu njëkkoon xale boo daan gis muy tux dafay da bariwul woon mhm. mag mi ko daan def daf ko daan nëbb sax bu daan nekk ci biir mbedd mi ndax wekk ñi mu dëkkal ak wekk ñi nga xam ñoom lay dajal tey jii kër gi yàqu boobu façon yàqu ban ban jàngat nga ci am El Hadj Ndiaye Lo. waaw El Hadj Abdou Aziz euh, démb gone amoon tey xale amatul xale yi am tey dañoo judd ngeen ngeen leen amaguñu huit jours ñu ko matti ndikkee ñoo ñay xale waaye xale amatul. Mhm. dellul foofu nga ni xale parce que El Hadj foofu foofu tey euh, euh, namantikoor bi balaa Adja dégg na ñëw fokk fokk ñu faram fàcce ci lu bari bari. waaw jërëjëf Mbaye dama la ne xale démb la woon waaye xale amatul. Mhm. xale yi am léegi mooy ñu judd te ngeen teegu leen ñu nga matti ndikkee. ñu am huit jours. huit bis jël ki ci ligne bi ñëw allo <laughs> allo. salaamaaleykum waaleykum salaam. ñu ngi ziar bu baax a baax. ñu lay ziar bu baax noo tudd ak fan nga nu woowee. doo yokk baat bi tuuti wala ñu yokkal nu fii ci retour bi lancer na s'il te plaît. ngi leen di woowee ci Italie. Uh-huh. Mm. Mm-hmm. waa Italie leen di ziar di leen baalu àq. di la ziar bu baax yow soxna si. Mm. jërëjëf. di kontaan ci sa émission. jërëjëf. di ziar Baye Ndiaye Lo Ndiaye. Mm-hmm. maa dellu ziar. di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér. amiin amiin ko ñaanal baax a baax a baax ndax moom benn koo xam ne moom dama ne. macha la daal. dëgg la dëgg la. maanaam nekk koo xam ne lépp rek njëriñ lekk njëriñ. dëgg la amiin amiin. wala ñu yaakaar ci yéen seen tuwaay yëpp. allahumma amiin amiin amiin. ñaanal sëñ Abdou bi. maa ngi lay fay bu baax. koo xam ne sopp nañ ko lool nag. jërëjëf man tamit sopp naa leen. waaw sopp nañ ko nit ku baax la nit ku laajee la kàddoom oyof yi xam nga nit ki moom ñaar biir rek dafa nekk loo xam ne nii dafay dafay dafay suuxat. xolu doomu aadama. Mhm. wax bi ngeen di wax nii dafa nekk wax ne day jëriñ ñu nii. jërëjëf li ngeen di wax lépp njëriñ li ngeen di wax lépp rek. su ngeen déglu te dégg leen rek daanaka jarul sax mu yéeg dañ leen di ñaanal yàlla boo nu may retour bi fii parce que dafa mel ni dafa xaw a faible fii ci ci studio bi El Hadj yaa ngi woon ci xale jërëjëf ok waaw may la xale amatul xale yi am léegi kenn ngénteegu leen ndax bis bi ñëwatagul te ñu nga matti ndiki mënu guñoo sax xëppi mhm. démb toolum ngonta amoon ba mu feree te ñàkk lam xëy amatul toolum ngont mooy doom daana teel a nuru ay waajuram te du màgg ba mën leen a yor waaye jikko ji la daan nàmp ba mu way ci biir yaramam ba rusa def lu ñaaw jël léppam nag teg ko bët baayam ndax du bëgg mu gën ko ndey ëllëg fu mu jaar tëkki loolu amoon dem moo doon xale mhm. léegi nag xale yi amatul xale léegi li seen baay am lañu am li ñu xam lañu xam li ñu ñeme seen baay ñu ñemewu ko mhm. kon du ñu xale étudiant amatul dootuñu xëttali ëllëg seeni waajur étudiants yi léegi mooy ñàkk xettali say waajur démb étudiant amoon luy étudiant dañ daan màng takk der li ñu woowee laxas dem naa université su ma dëpp di polom ngir mën a fay boru waajur yi rus na maa def lu ñaaw ba liggéey su ma teree ñu yedd ma jële ko ci ligne bi Abdou Aziz allo allo maa ngi lay nuyu ku baax noo tudd ak fan nga nuy woowee allo dafa mel ni dafa dem Mm. waaw ñu ngi lay dégg. maa leen di ñu ngi lay ñu ngi lay fay nan nga tudd ku baax kii ak fan nga nuy woowee. Moussa Gueye. Moussa Gueye Moussa ñu ngi lay nuyu di la baalu àq bu baax ci koor ci koor gi mu jógee. ñu ngi lay ziar bu baax ñu nit. alhamdulilah maa leen ziar bu mhm. loo xam ci thème bi. waaw man dama leen ziar yéen yow ak. Père Ndiaye Lo Ndiaye. dëgg la jërëjëf. waaw ah, moom moom wax dëgg yàlla dama koy déglu bu baax a baax. Mm-hmm. saa yi wax moom sama yaram day daw dama koy déglu sax di jooy bilaahi. Mm-hmm. jërëjëf. yàlla bu wér naa xam numéro wax dëgg yàlla. la ko laas rek. Ah, jërëjëf. maa ngi koy ziar bu baax a baax. maa ngi lay dellu ziar. waaw ah, di ñaanal yàlla yàlla nga yàlla gudd fan. bu baax amiin amiin yàlla bàyyi la fi ba ci kanam ak kanam. amiin lu bokk ak soxna si. voilà jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Si loolu moo amoon. boo gisee léegi boo déggee alxëri ba la nga ko dégg te am 6 mois mbaa 1 an. góor ñee teey. xeli jigéen ñi daw ab course la. waaye ba daraa ba daanoon jëluñu ngañaay ndax jigéen ak jigéen yi daa bokkul ak ku jig jigéen dee fi am ndax ku juddu doon jigéen jigéen nga mën a doon. Mhm. waaye yàq nga sa bopp dootoo jig góor. bu dee xale bu góor nag ngeen yem milieu da di ànd loolu ñuy wooyee place place nag am na lu muy wund hmm. am palto ko gën am place a gën di si jëriñoo ko gën damaa wax toujours ni la xale bu jigéen bu dara néewul ci xelam loolu moocu te hmm. muucu bu njëkk bi nag danga nga daan muucu jomb <laughs> ah déggoo Maya Bassi waay. waaw waaw mu muucu. muucu bu njëkk la xale yi daan def. Hmm. dañ daan muucu jikko ju rafet. wanaaso ko mu diw lor buñ demee mu leen sàmm doon seen yetu ngànnaay ba dootuñu def erreur léegi nag muucoo xew luy muucu da ngay muucu ngir miir. Mhm. muucu ngir jànnexe. Mhm. muucu ngir dootoo xam foo jëm. muucu ngir yabeel ak pertement. Mhm. loolu moo bari léegi waaye elew ak élevage moo amoon bu njëkk élevage amoon bu njëkk daan daw raw uh-huh. léegi élève am élève nag wóorul tànk amul diplôme uh-huh. waaye lu day ni élève bu duggee ci biir classe dem ci bitik jënd luy jar cent franc mu doon bitik su ndaw boo gisee dee ni ima la seen yow boo leen ko joxoon mën nañ koo naan ndax amuñu ko <laughs> jële ko ci ligne bi. aywa <laughs> ñu ngi lay <laughs> asalaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar di la sargal di la dalal. Ah, na ngeen yendoo ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. alhamdulilah maa ngi nuyu yéen ñëpp ñooñu toog. ñu ngi lay ziar bu baax. commencé di nuyu ci Youssou nga xam ni mooy borom télévision bi. dëgg la. maa ngi wootee Johannesburg. Johannesburg ñu ngi nuyu waa Jobour ñëpp. <laughs> ñëpp. Uh-huh. xëy na nag da di jafe tuuti pour. di leen di jot ci téléphone. ñu ngi ciy jéggalu bu baax. benn yoon laa ci mës a dégg am benn Sénégal bu ci woote muy bërkaat démb ci guddi. ndeysaan ba dégg xaw ma lan faal. Uh-huh. bon kenn bii ngeen di woote muy thème bu am solo boo xam ni démb. Uh-huh. yàlla def na bi may dem di defar sama oto am lu may defari maa ngi romb benn waay. Uh-huh. bi may wax ni ma doo ma dimbali lu ma lekk man ko yow lii ngay def bu ma la dimbalee loo lekk ci nga koy defar. dégg nga. mu am solo loo xam ni ku ci ku ci gisul li nga xam ne moom moo dal ñeneen ñi nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen réew yi boo leen gisee kon ñu demee ba nga xam ne ñu ngi naan Sénégal xale yu ndaw yi ñoo ngay utiliser yu mel noonu. mu mhm. ni li li Baye Ndiaye di wax noonu. Mhm. am na ñàkk kilifa la. dëgg la. ñu ngi leen di di leen sant di leen gërëm am mbégte ci émission ba ngeen def maa ngi leen di ñaan tondi rek di leen wax ni maanaam. Mm-hmm. am na ci Sénégal yoo xam ne nekk nañ waaye li nga xam ne soo jafe-jafe la mooy nañu dimbali waa gouvernement bi dëkk muy problème passeport dañ ko am fii ci réew mi. Mm-hmm. yaakaar naa ne autorités yi ñu ngi leen di déglu am na Sénégal yoo xam ne am nañ ci xaalis. Mm-hmm. mais këyit moo leen bàyyi ci réew mi ndax passeport la ñu am problème am. boo simee doo ko mën a amati. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. ñu leen di ñaan ngeen jàppale ne boole ñu ci loolu waaye ñu ngi am mbégte kontaan ci thème bi yàgg naa jéem a woote mënuma kii mënuma mënuma jot bi ma waajee waaye sax dafa defe ne anglophone laa ni ma ndax sénégalais nga ndeysaan ndar laa dëkk dëgg la dëgg la dëgg la yaakaar naa ne ci loolu autorités yi dégg nañ ko waaye ah. sénégalais yi nga nekk ñi nga xam ne ñoo nekk en Afrique du Sud moom nee na Johannesburg lay wootee am nañ problème problème mu lan passeport xaalis leen fa waaye problème mu këyit lañ am yaakaar naa ne muy consulat wala ambassade ba nekk bu ñuy déglu jéem ci saafara ndax comme ni ñuy wax rek télévision Futurs Médias moom mooy seetu askan wi eh, mooy seetu askan wi euh, El fi nga nekkoon foofu mooy li nga xam ni moo am solo xale bi nga xam ni ah. li muy def waaye juram xamu ko ñimewu ko Adja ñu ñëw ci tout escolarisation bi xam ne am ci école yi. wax naan sexualité thème la beneen mais dañuy jël drogue bi nga xam moo nekk ci biir école yi. Mm. wax nan bu yàggul ni leen amoon na ay sachet yu ñuy jaay mais léegi tux yàmba bi nga xam ni dafa nekk ci biir école mm-hmm. xale yi préparé examen di ko def mais xale yu jigéen di ci ànd ak ñoom mu mel ne léegi xale yu jigéen sax ñu ci ëppale xale yu góor taxawaay mm-hmm. ci école ban jàngat ak ban too nga ci am ci loolu euh, ñu jël ki nekk ci ligne bi. allo balaa ñuy tontu ci loolu. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw maa leen di fay. ñu ngi foo ñu woowee. man maa leen woowee Italie. Italie ñu ngi lay nuyu nag waa Italie. sant alhamdulilah. ñu ngi lay déglu ci thème bi. waa thème bi moo tax may woote. parce que mhm. li ngeen wax moom lu am la ko bi dafa bari ci àdduna bi instant bi mhm. te xale yi ñu ëpp. xale yi ñoo si ëpp. ndax euh, moyens yi bëriwut. Mhm. bëgg-bëgg yi bëri na te ñu bëri tamit euh, amatuñ ngoor gi seen i waajur amoon. dëgg la. ngay xool ñoom ngay nekk fii Europe ba nga xam ne daf fiy ñëw doo liggéey liggéey ñàkk liggéey wala mënooy jaay nga dem dugg ci affaire trafic en drogue. Mhm. ndax lépp ngir bëgg na nekk damay tere say waajur ndax loolu tamit bëgg tere say waajur doro war tax nga dem jaay drogue wala nga dem di utiliser drogue. Mhm, ndax nag gone war am jom. dëgg la. man de xale mais mosuma xam sax fu ñuy teet ci kër di ko jox. ba mu juddoo ba léegi maa ngi faj samay soxla. Mhm. teewut ñëwuma ñu jaay dorog wala ñu koy utilisé ndax amul benn muñ. dëgg la ci liggéey bu lew. waaw liggéey bu lew moo gën mhm. moo mën di gis. Mhm. mais tamit benn ko man maa tamit tamit euh, interpellé parents yi ndax nit sa doom boo ko yoree. mu ñëw yow këpp la xaalis war ngaa laaj xaalis fan la ko jël ak nan la def ba am ko. ndax da ngay sew muudu muudu bu nekk fii ñëw Sénégal ñu la kii moo fi tabax lii ci moo fi def lii. waaw te ñun ñu nekk fi xamante naan xam naa ni muy def ba am xaalis boobu. dëgg la ñu naan la xoola sa nawle bi. xoola sa nawle bi ñu def li mu def fekk yow. Mhm. yow xam nga ni mu demee mais doonu kenn lépp ngay mën a dëgg la boo ko waxee da naan da ngaa ñaan wala da ngaa mais ñun parents yi jàll na mu yàlla baax ñu si bëri day xaalis dañu gis boo mhm. joxee rek ñoom moom yaa fi gën boo joxewul ñu ne baaxoo. Mhm. fekk na kiy joxe sax li muy def ki joxe bu deful loolu. dëgg la dëgg la loolu laa laa bëggoon tamit Sénégal yaa seen bopp yaa seen xel. am na solo tamit ñu toujours tubaab yi di ñëw ay touriste. Mhm. du leen contrôler tubaab bu fi ñëw duñ xam lu mu fi indaale n'importe quoi lañ fi indi. Mhm. ay drogue lu nekk lañ fi indi. dëgg la ñu naan dañ fay ñëw pour émerger mais dëgg la dañuy émerger mais am na ñu baax nañu bon. Mhm. war nañ see war nañ see seetal bu baax autorité yeeg parents yi. ñëpp bokk jàpp si daal. dëgg la sëñ bi jërëjëf Adja yaa ngi woon ci ponk école bi. ñu ngi lay jaajëfal ñu bàyyi bala may delluwaat ci El Hadj Diallo bi. Mhm. xam nga jeunesse bi tonton lu tax euh, mel naa la mu nekk couche bu vulnérable euh, jeunesse déjà boo nekkee xale nekk jeune dangay ngay manqué expérience. maanaam doo am expérience deuxièmement désir de paraître da ngay bëgg fës bëgg a feeñ wax nañ démb ci jeunes yi nga xam ne dañuy timide dañuy duñu xam comment s'exprimer duñu xam nan la ñuy donc jeune déjà égal euh, moment de puberté bëgg fës bëgg feeñ euh, donc désir de paraître euh, bëgg ambition man maay diw ñu xàmmee la ràññee la ci école bi donc nga nekk nit ki branché ku branché parce que tey Sénégal da nga diw dafa branché diw branché wul mm-hmm. donc bëgg a branché bëgg feeñ le désir de paraître mu ngi ci mimétisme mu ngi ci mimétisme mooy toppandoo toppandoo ndax jeune lu mu gis moroomu jeune am def ko nee naa tey dama lay jox exemple man ak sa doom ak sama doom nekk ci benn école yow nga am moyen wu sa doom Amérique vacances man aw ma moyen wu yóbbu sama doom Amérique vacances sa doom jooju bu fekkente ne ni dem na Amérique ñëw même bu laalul woon wala jegewul woon il faut mu wan waa classe am yi ak waa école yi man yanki laa man États-Unis laa jóge man yuus ba laa nekkoon donc le désir de paraître de de s'affirmer dina dugal xale yi ci loolu. Mhm. sama doom ji nga xam ne man aw ma moyen wu yóbbu ko bu fekkee yaruma ko joxuma ko confiance en lui-même wanuma ko ne am ak ñàkk ñoo yem. Euh, euh, parce que manque de confiance aussi ci la bokk dana xool xale boobu ne ah kii kat peut-être il a plus d'expérience que moi li muy expérimenté xaar ma jéem a mos xool xaar ma déem a ñam xool te nee naa la drogue bi boo ci xasee ba dugg dootoo ko bàyyi te li ci alarmant tonton Aziz mooy drogue bi ci école yi les grandes écoles nag laa wax école yu mag yi nga xamante nii ñoom la ñuy tudd ñu nekkoon ay école de renom di former ay xale yu baax di former ay xale yi nga xam ne ay jàngkat diplômé yu mag yi ci école yooyu lañu daan génnee tey école yooyu ndax école yooyu tey lañ naan doomu borom barke yi tey ci école yooyu la ñu nekk te doomu borom barke yooyu tey nee naa la drop bi épargné wul benn couche société bi bàyyiwul kenn ka ñàkk ma nga ca ka am bay tuuru ma nga ca tey jii école yooyu tey foofu mooy mooy mooy mooy niiwu drogue bi tey te nee naa la le foyer maanaam kër mooy li tonton Ndiaye looy wax sànq euh, famille mooy creuser bi nga xam ne foofu la individu bi di créer woo foofu lay amee confiance ci boppam foofu lay nekkee ku mën a affronter le monde wala mu nekk koo xam ne kuy raser les murs lay doon koo xam ne ku ñuy yóbbaale lay doon te tey waajur yi comme ni ko tonton Ndiaye loo waxee amatuñ jotu yar kenn dangay tabax sa kër tonton Aziz def sa appartement ca kaw ca kaw a kaw nag laa wax huit bu jotee benn xale amatul droit franchir escalier yi yéeg ca kaw pour fekk yaay ak papa ca kaw yéen yéen a ngi dund seen dund pendant ce temps est-ce que xam ngeen li xew ci suuf. Hmm. est-ce que xam ngeen seeni doom ci lan la ñu nekk ñee ngi sàcc caabi yi ñu am ñu jël kii fëgg. allo. allo. oui. waaw euh, kooku kan la Papa Ndiaye Lo Ndiaye. waaw. waaw maa ngi maa ngi jégalu da baal ma waa Mauritanie la xam nga ñun moom moo tax. Euh, émission bu ngeen def rek bu ñu duggul du baax daal. dëgg ñuy métti daf ñuy métti trop ñu ngi insister rek. Mm-hmm. waaw mu am lu tuuti lu ma bëggoon a wax rek sama euh, wax wax ak sama papa Kocc Barma muy wax ak tontu. Mm-hmm. muy Ousseynou Cissé mi nga xam ne moo duggoon léegi ci Mauritanie. Mm-hmm. waaw dama wax ni Kocc boo yeboo nga xam ne bët muuru na borom gën a gis njaacaar. am am ko araamal mos te xam bu wóor la muy saf. nga gis ku sakki noppam déggoo lu àddina di riir ki juddu tey xam lu moom tey maanaam am na solo dégg bu baax li mu wax. am na solo am na solo am na solo. bu fekkee bëtam mbuuru. moo gën a gis njàccaar waaw mooy gën a gis. njàccaar li wu ci bët mi ngi ci xol mi ngi ci xol voilà. <laughs> dëgg la ñu ah, leen di waaw voilà ñu ne. ajàkku ne la bala may ñëw ci laaj njàlloo ci. tey jii parent day tabax këram def appartement am ca kaw. doom à partir de huit heures amatoo droit franchir escalier yi est ce que xam ngeen seeni doom ci suuf lu ñu nekkee xale yaa ngi sàcc caabi oto yi parents yi tey boo génnee ci biti euh, minuit une heure du matin ay xale yi naw rek ngay gis ñu taal seen musique ba mu sës yokk seen di dañuy dund li nga xam ne moom la ñuy gis ci film yi parce que médias yi aussi am nañ ci rôle bu am importance ak sensibilisation parce que dañ xale yi dañ war a xam ne film scénario la nit moo ko bind doomu aadama moo lekk ba suur naan ba maan di toog jël temps bind ko donc du vécu du dund du nit ki li muy dund te ñoom nag dañuy con dañuy confondre dund boobu ñuy gis ci film yi mm-hmm. dund boobu ñu yaakaar ne moom la ñuy gis ci télé bi ci média yi dund boobu c'est une vie réelle alors que c'est pas une vie réelle te du ku nekk ak sa vie parce que ku nekk ak sa réalité tey Sénégal waroon nañ tal leneen lu dul drogue wala yàmba mais tey xale yi ñu ngi ci nee naa la tranche d'âge bi ci gën a ndaw 13 ans la ci école Renault yi nga xam ne ñoo daan former nit ñu mag yi tey ay drogué la ñuy former école yooyu tey tey école yooyu ay tuxkatu yàmba ay ginskat la ñuy former tey te les gens ne s'en pas compte te nee naa la yenn saa yi ci biir kër yi yaay elle toujours au courant xëy na papa moo dul xam yenn saa yi li xew mais sa doom bu commencé tux bu fekkee am nga seetlu wala mu commencé jëfandikoo loo xamante ne nii gisoo ko woon parce que euh, loolu muy jël day tax comportement changé comportement bu changé nag ki fa nekk pour seetlu ko moo koy gis waaye ki ki fa nekkul pour seetlu ko du ko gis te nee naa la euh, narcotrafiquants yi c'est des managers te jeunesse ñëpp xam nañ ne dañu am tendance regroupement foo fekk jeune mu ngi essayer di regrouper wu di former ay ay ay ASC di former ay di di di di di dem plage di toujours il sont regroupés donc regroupement boobu tamit moo intéressé ñi nga xam ne ñooy trafiqué parce que bu ñuy am du ñu am benn nit groupe la ñuy am donc phénomène boobu noonu la demee en fait narcotrafiquants yi ñooñu cible la ci ñoom ndax cible la boo xam ne mën na tax permettre seen écoulement marchandise gaaw te xamuñu ne ñu ngi loofal jeune su ci su réew mi te nee naa la dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quelle nation tu auras. jërëjëf Adja ci jàngat bi ci xale ak li nga xam drogue mais ñu dem publicité te dellusiwaat la sana dellusiwaat léegi ci plateau bi.